Mohamed ñu ngi nuyu ñuy suivre TV di leen ziar tey ñu ngi Géejawaay stade Amadou Barry lii nag open press la Mohamed yaa xool mbooloo mi gis nga tribune yi fii lii yëpp Balla Gaye moo fi woote open press war a jàkkaarloog journaliste si ngir lañ waajal dimanche wala boog samedi ngeen baal ma samedi le 31 mars digganteem ak kan Gris Bordeaux Bala maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Babacar. Lirou tey lii nu mu demee ni open press ngeen woote wala gaañ press bi. borom bis bi moo toll nii ndax borom bis bi xam gi xam ne Guédiawaye li mu fi liggéey moo waral lii kon nag lii wane na ni yàlla yàlla ñu may ndam ci incha allah rabi sooba yàlla ñëpp nañ ànd ak dal ak teey mbër yëpp ñu ñëw. taxaw ànd ak discipline jàppale mbër mi moo waral lii ñuy moo gën lii ñuy def c'est pas normal topp mbër mi ñoom ñëpp amul Samba amul Paul mbër yëpp daal ñoo dar mbër mi dañuy yàq dañuy yàq ko mbagay at at lañ ko pare te ñun incha allah rab yàlla dañu may ndam sooba yàlla dañoo la ba mu toll fii. kon gars yi dañuy saboté daa mel daa am ñuy saboté. non non non c'est pas normal ay rax dafa am rax c'est normal dafa bari sàcc yeeg ñëpp ci biir borom noonu borom am na ñoo xam ne dëkk ñu géej am na ñoo xam dëkkuñu géejawaay. mais Balla Gris loo gis. yàlla na leen suturaal yàlla may ñu ndam Gris Bordeaux Balla ko man bokkuñu Balla bay Balla Gaye fi mu jaar Gris jaarul foofu yàlla na yàlla suturaal yàlla may ñu ndam seddu guy waaye ku gis Balla Gaye xam ne préparé combat bi liggéey na. Ndiaga Dolé bëgg na. ay fii la rawee doomu yaay waa Lutte TV maa ngi leen di bëgg bëre wër waay. Ndiaga Dolé gars yi nañu mbër la léegi wala Mara la léegi. non Mara mbër laa. waaw Balla pare na. Eh, du bëre ma de. combat bi. aduna bakkan bu laajee bakkan sax dañ ko jox combat bi lu mu laaj mooy loolu. ndax combat bi ñun suñu bër duñ ko jay quoi gis nañ coono yi si daj bu baax a baax a baax ñoo nekk ak moom bu dëgg bëccëg mais ñun ñii combat moo ñu gën a bëgg kon nag ñun amuñ dara loo xamante ne tiital nañ ko ko wala kii ndam rek incha allah. géejawaay la na jarbaat maa ngi lay fay maa ngi lay gërëm nag la ma la waxoon stade laa lay waxaat dugg ci làmb xàmme ñi nekk ci làmb ji moo am solo te loolu moo la dal suñu taxawaay bii nag dañ ciy gërëm ay dara bu baax di gërëm Baye Ndiaye bu baax di gërëm Aziz Ndiaye di gërëm Pam Mama Fall ku juum di la wax ni tey lii nga gis dem nga ci open presse bu ne masoo ko gis dañuy ñaan Ahmed Aidara yàgg suñu kanam ndax Ahmed moom mooy Géejawaay Baye Ndiaye mooy Géejawaay Aziz Ndiaye mooy Géejawaay Alaaji Ale Ndiaye nag wan na ni mooy suñu baay lii may wax dama bëgg nga teg ko Alaaji Ale 11h la ñëw ci stade bi 4 ba 4 heures si ngoon dara andiwu ko ludul mag mu baax la. woote ma di la wax làmb ji jëm maa ngi ñaan ci suma doole sëriñ sëriñ Babacar Sy dogu naa ci sëriñ Babacar Sy Balla Gaye day daan giri maa ngi ñaan seen télévision bi yokku maa ngi ñaan nga nekk journaliste bu mag a mag ndax yow suma xol nga dugg ndax nit ku am kóllëre nga waaye géejawaye ngi nii kii mënuñu ko fay kii sama idole na kii Ahmed Aïdara mi suñu xool sedd na borom Guédiawaye ngi nii Baye Ndiaye Aziz mënuñu leen koy lii lépp ñoom la jërëjëf mbokk yi Lutte TV ñu ngi toog ak Ablaye Mbaye adjoint maire représentant maire Aline Sall monsieur l'adjoint ñu ngi lay ziare. ziar naa leen bu baax yéen tamit. man li ma leen di njëkk a laaj yéen da ngeen a ci li ñu xam jox ko Balla Gaye ngir Gris Bordeaux kese pour samedi le 31 mars waaw bon loolu sport la c'est dans le cadre du sport parce que sport aussi ci compétence transférée yu maire la bokk parce que maire yi développement am ak doxalinam sport dafa ci bokk bu ñu gis ne rek euh, lamb jee ko tax a jóg mais sport la te Balla aussi moo ni tollu te ku xool stade bi maire yëkkati ko mettre ko à la disposition de Balla nga xool fii jeunesse Guédiawaye li fi nekk xam nga ni luñ fi def xeeb nañ ko te aussi combat bi moo ni toll parce que Guédiawaye dafa soxla ndam. te ndam li aussi nuñ ko war a amee dañ ko daf ñu ko war a jaral moo tax aliyu Sall def ca la mu ca war a def jàppalee ko Balla Gaye fas yéene koo jàppalee ay supporteru Balla Gaye ba ñu yegg ca stade amitié jël ndam li indi ko Géejawaay yóbbul ko Aliou Sall waaw. nu ngeen di ñëwee samedi. ah samedi naka ngeen di ñëwee stade Léopold Senghor. samedi ni ñuy ñëwee stade mooy lépp lu fi kaar ak lépp lu fiy ticket Aliou Sall jël na ko en charge. te dinañ def ngan di délégation te foog naa ne ñun Guédiawaye xajuñu stade amitié combat bi combat géejawaay la combat Aliou Sall la victoire bi dañuy dem jël ko par la force indi ko géejawaay. Luc Nicolaï li mu def pay ku demul stade fay code 1500 seetaan muy lu muy lu luy door am si làmb si Balla Gaye ak Gris Bordeaux loolu nu ngeen ko gis en tant qu'autorité. waaw bon loolu xëy na ci xeetu innovation yi la bokk mais xam naa ni peut-être bu ñu demee ba làmb ji jeex xëy na dinañ xool ndax dina nekk développement làmb wala déet mais loolu moom en tant que promoteur xëy na moom loolu la gis bu ñu sañoon aussi en tant que autorité Sénégal yëpp seetaan làmb ji loolu daal mooy suñu ñam mooy suñu sañ-sañ. man ngeen a taxaw waa Géejawaay ci code yi bañ seetaan ko ñëpp waa Géejawaay yëpp. waaw dinañ ko ñaan nig li ko laay mu ibbi télé yi ñëpp def ko en direct parce que combat bi combat bu bu ñu te combat bi aussi da koo jar bu soobee yàlla dinañ ci taxaw bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeral te tax ci barke di sant waa kër Maam Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan ak kër sëriñ Babacar Si Baye Niass Casamance Sédhiou Ziguinchor Malfra Guinée Bissau Gambie bàyyiwuñu kenn bu ñu nee dañuy bu loolu weesoo may sant suñu papa Baye Allé ndax tey tey ci 11h ci stade bi la ko fekk mu bàyyi yitteem yëpp nekk suñu bàyyi uuf ñu géejuwaay yëpp di ko rafetlu franchement ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant. di sant aussi tamit Malick suñu papa suñu xarit suñu lépp vraiment di seen taxawaay. Alioune Sall ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di seen bu baax a baax Aziz suma mag suma xarit suma kilifa suma lépp maa ngi koy sant ba sant fu mu yem ndax xam naa coono yu mu daj pour mu am ndam di sant Diaw bu baax Daado Seck maa ngi lay sant di la gërëm di sant suma papa bi ma jur muy Double Less ñu koy wax Mamadou Sakho di sant Baye Ndiaye Omar Gueye Baara Gueye sama turandoo bay Balla maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm yéen ñi nga xamante ne aussi teew fii muy mbër yëpp ku ci mel ne Lac de Masata maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Baara Gueye maa ngi lay sant bu baax Andaw Pape Mamma Kor Ndiak maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm Ahmed Aidara maa ngi koy sant baax di leen gërëm Papis maa ngi lay sant bu baax di leen gërëm bu ko ku sax wax sa tur Adama Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm Simon Talla Mbengue Modou Fall Mbaye Diop maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi teew fii nag aussi ngeen bàyyi seen yitte yëpp ngir Balla Gaye numéro 2 aw ma seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na yàlla fay yéen a xam loo leen bëgg ci Balla Gaye numéro 2 yàlla lu ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ñu yàlla may ndam yàlla na ñu yàlla may ndam mooy li ma gënal. mooy li leen gënal bu laajee joxe bakam barki Serigne Saliou Mbacké naa ko jox biram ba maa ngi ñaan yàlla yàlla yàlla mottali yéene bi yëpp ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Guédiawaye yëpp Lac de Guiers numéro 2 maa ngay sant Abdou Diouf Daado Seck sant naa bu baax yàgg naa ko sant Mariama Tuuti Elton maa ngi lay sant yàlla na yàlla may ndam guy gi yàlla na yàlla may ndam Abdou Diouf suma boxeur suma entraîneur xaadim aw ma sa fay yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay léegi nag ñu déglu gars yi ci question yi. Balla wax naa ko léegi mobilisation bi ku ko gis xam ne am na fu géejawaay nekkoon am na fu géejawaay bëgg a dellu te loolu géejawaay yëpp dañ la yaakaar am nga fi tàkkusaan sa digganteeg Yékini waaye mobilisation bi gisuñu ko woon am nga fi tàkkusaan sa diggante ak Tapha waaye mobilisation bi gisuñu ko woon am nga fi euh, takkusaan sa diggante ak Mohamed Ndao Tyson waaye mobilisation bi gisuñu ko mobilisation bi dafa am lu rëcc Guédiawaye ñu bëgg ko delloosi ndax comprendre nga message bi ndax loolu du su du pression ci yow. jërëjëf Malick Thiandoum laaj nga ma ko ndax tey combat yi ma ñàkk yëpp boo seetee ñii gisoo combat yi ba ñu nekk yëpp boo gisee ñuy taxaw ñëpp gisoo leen ko kon yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di sant saa kees suma nag Ama Baldé maa koy sant bu baax suma deret suma xarit suma doom suma lépp moom ak saa kees maa di sant bu baax gis naa taxawaay ak suma mag Zil Baldé ak Baboy ak Ousmane Diop. géejewaay nag message bi ma lancé dafa rëy ci man te xam naa fi ñu bëgg ma dem xam naa li ma mu naqari leen loolu. dinaa ci xuus suma bakkan dinaa ca suma fulla dinaa ca suma jom ba li ñu bëgg ci man bu soobee yàlla bu ñëwaat géejawaay li ñu bëgg bu ñëwaat géejawaay xam nga ko mooy titre roi des arènes mais balaa ngay jëlaat sa titre roi des arènes nga am adversaire bu coriace muy Gris Bordeaux ñëpp di ndax Balla Gaye doole ja woon ca moom vivacité ba woon ca moom xereñte ga nekkoon ci moom ak loolu yëpp ndax mi ngi waat ci moom yaa war a dajal dalal xelu gaa yi tax di la déglu tey. waa alhamdulilah liggéey nañ lépp pendant ay at ñu nekkoon suñu ruux di defaru di entraîné di defaru di entraîné ba yàlla may ñu lu ñu lu ñu soxla kon ñii li ñu bëgg ci man incha bu neexee yàlla dina na ko defaral. titre bi lañ soxla waxuñu combat bi de peut-être combat bi am na di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. mais tiit bi bu ñu soxla bu soobee yàlla man maa leen ko garanti naa la ko jox incha allah. Balla léegi Khadim mu nekk sa entraîneur ci wàllu boxe gis nañu nga def ay gauche droite dugal uppercut crochet long crochet court lu nekk ngeen liggéey ko ñëpp dañu ni ñemewuloo taxaw xeex ak Gris ndax nee na bu nee rëtt tëf tëf ñemewuloo ko ci côté boobu. alors ndax Balla namm na ay loxoom pour jàkkaarloo ak Gris Bordeaux ak moom ba waa Géejawaay kontaan. waa Géejawaay yàlla moo fi def barke. képp ku nga mës a jàkkaarloo Balla Gaye numéro 2 nga ne mun nga xeex. boobaa yàlla dogal na Balla Gaye 2 da lay sa bopp. wax nag yomb na tëf tëf tëf mais bu que dana ko def gëm naa ne xeexul day yoon man mënumaa teg xel. bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko incha allah. siflee di ko xam bu ñaari mbëri simee ko di ko xam mënumaa féetee mag moom mu ne sama xol baaxul ba muy dugg ci làmb déggoo mu ne ñaata carrière la def vingt ans la wax la carrière man dafa guma dix ans de carrière wala ci lay yem kon jiit na ma ci làmb lu bëri li ma koy xamal moom na dëggal boppam une minute laa ko may bu ñëwul ma ñëw fekk ko incha allah. fukki at nga def ko ci juróomi at jékki-jékki am bees. de wara war a oo soit au top niveau alors actuellement nii Balla Gaye sa diggante ak Gris Bordeaux enjeu bi ndax mesuré nga ko sas bi ndax mesuré nga ko pression bi ndax mettiwul ci sa kaw. waaw dama ne alalu gaynde segg amu ci wàll. dama mu leer alalu gaynde segg amu ci wàll. Gris xam nga kuy Balla Gaye numéro 2 na. lu la neex waxal waaye buñ tëjee barrière ngay xam kuy Balla Gaye war a doon pression bi alhamdulilah am nañ dal am nañ dal bu baax a baax a baax parce que ñii ku leen gis ak ni ñu bëggee Balla Gaye numéro 2 am ndam pression bi ci man la nag waaye ci làmb ja du ma ci am benn pression làmb rek laa ci gis bu nekk yàlla alors gis nañu également ci làmb yi passé gars yi ni Balla Gaye 2 dañ ko atteindre mystiquement mu jaaxal ñu bari Balla Gaye 2 fils de Guédiawaye Balla Gaye 2 fils de Double Less Balla Gaye 2 fils de ñu atteindre ko mystiquement ndax bii yoon defaraat nga sa arsenal mystique ba blindé sa bopp ba bu bés ba doo am benn lay ndax gis nañu Baye Ndiaye mu kaalaw nar laa topp nam la daan toppee alors fan nga toll ci côté boobu waaw ñu ngi di sant yàlla bu baax di wax ne sama xel dal na sama xel dal na ndax samay bàyyi laa gis ñu toog samay mag laa gis ñu toog samay xarit laa gis ñu toog samay am di jàmm laa gis di sant suma école de lutte ndax xam naa ne sonn nañ ku ci mel ni lees numéro 2 mu nekk suñu xarit nekk suñu lépp ñu ngi koy sant moom mooy nekk suñu kii fa école koy ziar bu baax a baax suñu turandoo baay la ñu ngi ciy waajal lu ñu mën waa Casamance mbal tentu leen mbal cay Casamance bee maa koy naaw booy Gris Bordeaux loolu wax suma mbokk yi Casamance bee bee bee naa moo naa maa koy naa booy Gris Bordeaux ala barka mbal tentule mbal cayna alors Balla dañoo gis waa Guédiawaye ak say fan si yëpp waa Casamance ak balaa seen xel a dal Adama Ngom rëkk na nii nga fecc ba tolloog moom def sa rotation boobu gars yi ni ndax Balla wëndeelu bi ma nga fa woon parce que keroog ba nga wëndeeloo sa diggante ak Gris Bordeaux dama ne accam wëndeelu bi neexuma waaye bi yoon ndax wëndeelu ba nga doon wëndeelu ba gars yëpp seen xel dal Balla Gaye mën nañu xaar rotation boobu ci moom enchaînement yéen doon gis sa diggante tey Ousmane Diop mii jógee Caaroy ànd ak yow ndax enchaînement yooyu dinañ ko gisaat rapidité vivacité puissance et technicité xoolal caméra yi lépp a ngi fi. caméra lépp lépp lépp lépp moo ngi fi. waaw na Adama Ngom suñu géwal. gis na ñu ngi sant di la gërëm. Diaw loo ma bëgg rek bëgg garaw daa doon sekk salaam min suuf bëgg ngeen waa Waalo maa ngi leen sant waa Seedo maa ngi leen sant waa Mourtani maa ngi leen sant. Oh. waaw Gambie waay ñëpp maa ngi leen di sant di leen bu ñu tuusee léegi léegi léegi léegi moom la ñu naan tuur ak rapidité bi. képp kuy fan suuf këlëb Balla Gaye numéro 2 international Sakho family waa kër Double Less ah waa Gambie waa Guinée Bissau waa Mauritanie maa ngi leen di xaar ak si leen ci jàmm di leen wax nag cat sec suma xarit suma doomu ndey si am naa la mas boogaa yaa bëgg naa leen ñëpp sama mafia bi nag bëgg naa leen waa golf waa golf waa golf maa ngi leen di bëgg waa Thiaw Sakir sëñ Abdou Karim borom Makali Makhla maa ngi koy ziar bu baax di ko gërëm Salim dafa buñu waa kër Cheikh na Cheikh Sadibou maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw Serigne Alwari maa ngi Amadou Bari ci Guédiawaye ku ñu fi woowoon Balla Gaye 2 ancien roi des arènes le lion de Guédiawaye tey nag mu woote woon fi open press li ko waral mooy samedi la jëm le 31 mars stade Léopold Senghor war a jàkkaarloo ak Gris Bordeaux le troisième tigre de fas ñu gis mbaru Guédiawaye yi génn autorité yi génn képp kuy doomu géejawaay gen supporters yi fans yi li la li nga gis fii tey Amadou Bari moo lay wan ne Balla Gaye numéro 2 ba tey fa mu nekkoon ci xol yi mu nga fa nekk ba tey ak ay fansam ak ay supporters ak ay ak waa géejawaay waaye ci luttetv.com surtout lamb boobu nga xam ne lamb kese moo ko tax a jóg ci ngeen di gisee ci lamb loo xam ne du ngeen ko gisee fenn